maanaam tamit bi jàll ñu ngi koy segaat maanaam ñu ngi corser le logiciel ñu jékki-jékki ñëw jël si mandataire basiru Diomaye muy Amadou Ba ñoom tamit ñu dem ñu yàgg trop on aussi on commencé à s'énerver ñu commencé du énerver ndax dafa dafa dafa yaaju lan moo waral mu war a yaaju ñoom ba ñu génnee Amadou Ba ak maître soow ak Aboubacar Sonko seen seen seen seen seen seen eh, eh, informaticien nañu sawaay fexe leen seen informaticien bi mu vigilant parce que le logiciel commence à bëggee logiciel bi dafa bëggee moom moo tax ñu commencé yàgg ñun suñu àqulaay taala rek nañuy wax donc logiciel bu toll ni war a traité ay information yi nga xamante ne ay candidat loo xamante ne à la présidentielle du caaxaan je pense bien que le président de leen ñaan le euh, recours ngeen nous ci ñu rapport de test et de qualification pour logiciel avec PV d'acceptation c'est très important recours yi ngeen rapport de test et de qualification avec PV d'acceptation logiciel parce que l'autorité est ni candidat présidentiel tout di créer ay erreurs ci données yi nga xamante dafa sensible parce que ñun les données qu'on a yi nga xam ne moom la ci rapport rapport bi de rejet bi nekkul les données qu'on a soumis yàlla moo tax ñuy wax te moo ko ngeen gën takku taxaw parce que Sénégal fi ñu jëm soxla na suñu taxaw ay suñu takku jërë jëf merci beaucoup. Merci Monsieur Amadou Sow je vous rappelle que c'est le mandataire de Monsieur Abdourahmane nous allons donner la parole au nom des alliés, Monsieur Hassan Diouf. sénégalais nous di coalition Bougan 2024 di nuyu de Nous avons une opposition bu jiddu bu population bu Sénégal li nga xamanteni mom lay leral dafa am ñu ñu xam Sénégal di depuis 2012 Nous jafé yoy injustice injustice ñu parrainage li injustice bi nga justice

ki leen ko sas mooy population bu Sénégal te population boobu dafa am résultat yu ñuy xaar résultat yi ñuy xaar mooy élection yi ñu jëm élection yi loo yoo xamante ni benn nit la ñu lool depuis 2012 muy Macky Sall muy dundal injustice ci Sénégal lu kenn mësta dund ñaari weer moo ci des ñaari weer yooyu tey bi ma yeewoo li ma njëkk a am ci information mooy nit ñi nañu dem jëli seeni carte d'identité nekk muy population bu Sénégal mooy benn candidat mooy suñu jooy yi ñu jooy at yi ñu weesu injustice bi tege ci tege ko ci ñii fi toog ñu koy dund ay at man ma dund ko moo tax bu ngeen seetloo weer yi yëpp waxuma parce que booy xeex dara ba egg ci cappaanda énergie bi la yàlla jox da nga koy denc pour bu bis baa nga mën koo fullaal te fullaal ko mooy affaire bi du Bougane du Assane du Tata Mimi du abdurrahman. Sénégal ba pare ñii nga xamante ni tamit ñoo jàll comme ay candidats ñun xam nañu

amul fu mu duggul dugg na foo xam ne Macky Sall mu faa teg tànkam en tant que président am na parrainage foo xamante ni Macky Sall mu su ko teg tànkam en tant que kon bu ñu taxawee ñu ne ñu ay Aly Ngouille ay Mame Boye Diao ay ay Boun Dionne ñooñu dañu jàll parenage ñun sénégalais war nañ xoolaat suñu bopp xool fi ñu jëm loolu laa amoon lu may wax li ci des dañ ci dem 2024 merci beaucoup merci beaucoup Hassan Diouf qu'on a fait, on accélère la cadence euh, madame.